salaamaaleykum euh, chers internautes euh, ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Senego TV te ñu ngi dalal euh, le directeur général de la SNHLM Mamadou Diagne si Mbengue muy responsable aussi politique APR à Tivaouane monsieur le directeur général ñu ngi leen di la dalal ci Senego. mais maa ngi leen di nuyu yéen tamit di leen dalal jàmm donc fii ci SNHLM di leen remercier également si intérêt bi ngeen porté ci société bi. ba ñëw pour def ak ñun euh, émission bi. ok donc euh, récemment bon actuellement yéen a ngi waajal euh, peut-être porte journée portes ouvertes euh, yéen a ngi ko prévoir le 25 ak le 26 ak le 27 donc euh, est-ce que mën nga ñëwaat exactement si importance journée yooyu. jërëjëf comme ni nga ko waxee dañuy waajal ay journée portes ouvertes su ma ko doon wax ci olof damay wax ne dañu ubbi suñuy bunt. pour wax sénégalais yëpp mu invité leen ñu ñëw biir SNHLM ñu partagé ak ñoom. lu bëree bari li ci jiitu mooy SNHLM ku ne xam na ni mu ngi existé depuis 1959 euh, mm-hmm. boobu ak tey am na loo xam ne def na ko ci réew mi euh, diggante 1959 ak tey li ñu naan li tubaab naan fortune diverse am na jamono yoo xam ne li doon produire bëri woon na lool mm-hmm. am jamono yoo xamante nii demoon na ba mu commencé wàcc waaye soo gisee ñu ni kaay leen xool nag mm-hmm. mooy que ni HLM fa mu nekkoon démb ak bërki démb xam ni ñetti at ak genn yi ñu fi def lu mission boobu lañ ñu santoon mooy ñu delloo ko fa yaakaar nañ teguwaat na ci ci yoon bi donc loolu moo waral ñu woo Sénégalais yi pour gën a waxtaan ak ñoom gën a dalal seen xel que ni ñun SNHLM dañu am lu ñuy wax mission de service public. maanaam ñu nekk ñu benn société privée boo xam ne lu ko tax a jóg mooy liggéey tabax jaay am bénéfice ñun benn satisfaction rek la ñu am si lu ñu état sant mooy sénégalais sénégalais bi nga xam dooleem bariwul. ñu fexe ba mu am terrain wala ñu fexe ba mu am kër si moom ni nga xamante ni moom la ko bëggee. ok donc justement par rapport ak problème terrain parce que depuis un moment ñu ngi remarqué ay problèmes fonciers au niveau du Sénégal donc euh, récemment aussi euh, gis nañu le cas de Ngor. exactement yow en tant qu'acteur politique aussi donc ban situation nga jàngatee euh, situation boobu noonu au niveau de Ngor. waaw gis naa kaawu Ngor bi ñu koy cité lu bëree bëri mais ça c'est un cas spécial la maanaam foofu amul li ñuy woowee litige foncier. parce que benn terrain la boo xamante ni état moo ko moom. ñu immatriculé ko ci turu état. mais nag mu nekk ci biir gox. maanaam gox bi nga xamante ni dafa tudd dafa tudd Ngor. terrain boobu lépp lu ñu fay def pour waa Ngor la. gendarme yi ñoom ñoo amoon foofu benn benn benn brigade. yàlla dogal brigade bi day inondé ñu soxlawaat beneen site pour tabax fa beneen beneen brigade. ñu gis benn terrain boo xam ne def na mètres carrés ñu ne ñoom war nañ ko mën a jël comme état moo ko moom ñu tabax fa gendarmerie. waaye population yi jàpp nañ ni soxla nañ gendarmerie waaye nekkul gendarmerie rek lañ soxla gendarmerie dëgg la priorité la mais aussi may fàttali Ngor ak fi mu féete ci wàllu géej ci wàllu ndox donc non seulement loolu dafay nécessité sécurité pour gox ba mais sécurité Sénégal parce que ndox moom porte d'entrée la ci ci ci pays mais li ma jàngat bi ma ciy def dëgg-dëgg ci mbiru Ngor bi mooy lépp lu xew ci dëkk lu xew ci àdduna waxtaane ko d'abord moom mooy li nga xamante ni moom moo gën naam loolu amoon na waaye waxtaanuñu woon ba juboo soog a soog a soog a soog a soog a dem ndaxte li nga ci gis mooy si mujjantal ga président de la république woo na leen toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu mujj am solution. ñoom lañ soxla woon muy lycée mu leen dina leen ko defaral si 3 mètres mètres carrés yi li ñu soxla woon muy gendarmerie ñu it dinañ ko jox euh, dinañ ko jox aussi euh, gendarme yi pour ñoom ñu def euh, ñu def seen gendarmerie. non mais waxtaan boobu waaw loolu moom ni ñu koy xëy na yàlla moo ko dogalee noonu mais dama jàpp ni sax xëy na bala mu doon yegg si président de la de la république. bu fekkente ni waxtaanee woon am nay kilifa yoo xam bu ñu wootee woon waxtaan boobu waxtaan boobu mën na mën na am. je pense que si pays bu mel ni Sénégal euh, normalool sax lépp di yegg ci président di yegg si président de la République xëy na nag pour am benn raccourci ñu régler problème boobu mu gaaw te population yi souvent léegi dañu dañu am dañu tàmm. su problème jógee balaa seen xel dal rek président wax ci parce que jàpp nañ ni su keneen jëlee décision sax décision boobu président mën na ko dindi mooy li wax rek li nga wax ne est-ce que euh, yéexul en tout cas xëy na mënoon na am avant loolu ñu am ci solution mais euh, li ñu si war a jàngat rek mooy que ni. problème bu amee ak lu mu tartar lu mu métti métti ñu toogee ko waxtaanee ko entre sénégalais solution mën na ci am. ok donc euh, mais gis nga gis nañu aussi tendance boobu euh, sénégalais depuis un moment à chaque fois suñu amee problème ils préfèrent génn ci mbedd ba des fois mu am ay confrontation entre force de l'ordre ak sénégalais ba des fois on note une fois ay bakkan yu rot. donc mhm. est ce que tendance boobu yow en tant qu'acteur politique nan nga ko jàngatee surtout ak élection yi ñu jublu de manière générale je pense que on est dans une république. Mhm. avec euh, ay institutions yoo xamante ni ñu ngi fi. ku nekk am sa am sa rôle mais comme ni ma ko waxee sànq muy le gouvernement muy une collectivité territoriale muy ku yor mission de service public mel ni société SDHLM ak keneen looy def population yi nga koy nga koy defal moo tax ñuy waral di wax ni tout ce que tu fais sans moi tu le fais contrement donc war nañ am euh, gën a réfléchir pour que euh, lépp loo xamante ni ay actes yu ñuy posé la ñu jaarale ko ci yoon boo xamante ni jafe-jafe mën na euh, mën na mën na bañ am ça vraiment suñu expérience même au niveau de l' administration war nañu loolu que ne lépp loo waxtaanee yàlla mën na ci def mën na ci def sutura parce que am na ñoo xamante nii bu fekkee yëkkati nga dara te xamuñu ci dara seen stratégie mooy jóg rek euh, wax wala ñu jëf loo xamante ni amaana di nga leen woo pour waxtaan ak ñoom pour ñu mën cee pour ñu pour ñu mën cee bokk loolu c' de manière général mais spécifiquement nag fi ñu toll nii ci contexte politique bu Sénégal ku ne xam na ni lépp loo xamante nii jóg na lu mu ndaw ndaw ah dina am ay politiciens yu raaxaloo pour jaxase dëkk bi loolu moom je pense que ni Sénégal yëpp noté non sama xel demul ci demul ci spécifiquement de non je je mm-hmm. mais dama jàpp ni ñaari camp moo fi ne bien que suñu ne mooy le camp présidentiel le ak l'opposition bien que opposition bi bari na ay branches mm-hmm. donc euh, su ma nee loolu ku ne xam na ni parti au pouvoir moom moo koy def loolu opposition moom moo koy moom moo koy def mais euh, loolu liñ ci euh, damay damay damay wax population yi aussi ñu gën a am conscience que ni tey jii euh, génn ci mbedd xeex saagante sànni tôt ou tard lii waaj a waxoon nii lii nii lii man li ma ciy amee rek mooy rip ku ko ci amit bu boobaa yow sa njaboot rek ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñàkk dëkk mënul ñàkk opposition on est dans une démocratie et la démo et la vitalité démocratique voudrait que au-delà du parti au pouvoir am des voix discordantes yoo xamante ni même day équilibré parce que àdduna nekkul ni yaa fi nekk defal defal lu la neex mais loolu yëpp nag dañ koy teg ci ci yoon teg ko ci yoon mooy li Sénégal tëral mais teg ko ci valeur yi nga xamante nii moom la ñu xamee Sénégal depuis depuis toujours c'est pas pour rien que Sénégal bii ñu xam nekk un pays stable suñu joonu yàlla ak tey defe naa ne loolu ñu am nag war nañ ko xam parce que nag lu dul jàmm rek jàmm moo ko gën loo bëgg bëgg bëgg accéder au pouvoir am na ñaari mbir war nga ko sàmm li ngay wax nga teg ko ci dëgg mais également li ngay jëf nga teg ko ci loo xamante ne nii méngoo ak li nga xamante ne nii moom mooy xaalu Sénégal. ok donc euh, si loolu aussi gis nañu ñu ngi si veille procès Ousmane Sonko Adji Sarr donc te jeunes yi encore bon les patriotes en quelque en quelque yéeme ñu ngi waajal aussi bon euh, seen leader. donc est que yaakaar nga ni aussi à la veille de ce procès ak jour procès boobu aussi yaakaar nga ni euh, tension yooyu dina xaw a par rapport ak même. Euh, dernier discours Sonko bi mu li may wax mooy nit ku ne da nga ni jeunes yi war nañ ko protéger ku su nekk yaay protéger sa bopp. Mhm. olof dafay. Sëriñ Babacar da doon wax ni. Uh-huh. ku ñëpp di xool da ngay jaar fu leer. Mhm. ñëpp di xool teg bët da jaar fu leer foo jaaree si lëndëm rek mhm. tuuma mën naa mën naa jóg foofu foofu ngay protéger sa bopp. maintenant les faits sont pour cette affaire la defe naa ni amul benn sénégalais boo xamante ni euh, yéene nga sa moroomu sénégalais. quand même lu bon wala lu ñaaw mais aussi en tout cas nañu xam ni on est dans une république avec des institutions qui fonctionnent et le plus important dans cette affaire la mooy que euh, le droit soit di maanaam dëgg bi na jib ñaari nit ñoo jàkkaarloo ñaari sénégalais am na nag ñaari xale sax wala ñaari équipe boo leen seetaan boo xàmmeewul sax équipe yi di nga am koo ci faral mais ku si nekk aussi na demee ak xelam demee ak xolom xam ni Euh, ñii fi nekk muy le pouvoir judiciaire ay magistrats yu jàng am fu ñu jaar am xam-xam depuis toujours problème bu mel nii ak bu mel ne ne ñoom ñoo ko mës a ñoom ñoo ko mës a jugé maintenant amul nit fooy toll ci dayo ba nga ni man dama war a soustraire à la justice de mon pays loolu mënul nekk bërki de moo Ndiaye le président Sarkozy je le cite parce que tëj nañ ko ñetti at yoo xamante ni benn bi daf koy tëdd ci loo xamante ni nekkul sax ci wàllu lu lu gravité bi tollul fii parce que dañu wax ni ci ay corruption ak ay écoute yoo xam ni dañ ko ko doon dañ ko ko doon def si lañ jëlee ay information nekkul ni it suñu demee bañ ñu élection day waaj jot ñu ni nañu suspendre la justice wala nañ bàyyi sénégalais bu lu nekk lu la neex nga def wala lu la neex lu la neex nga wax donc quelque que puisse la personne quest que plus être la situation ak contexte bi justice dafay continuer di di fonctionner donc on n'est pas dans une période de non-droit on n'est pas dans une période boo xamante ni lu woy lu neex waay def lu neex waay waay wax je pense que ni ak ku mënti dem tribunal di nga am say mbokk di nga am say xarit yoo xam ne bu ñu sañoon sax doo dem amaana it dinañ ni suñu sañoon bu demee ñu ñu acquitté ko maintenant nag ce qui ne peut pas marcher dans une république en tout cas qui se mooy sur la base de menace wala sur la base de xoxatal nga ni ah su ma defee nangam kat mën na am lii comme conséquence un magistrat dafay juger avec son intime conviction sur la base naturellement d'éléments yoo xamante ni tangible yoo xamante ni am na ko. toujours dans le cas du procès Sonko Adji Sarr donc toujours aussi dans le cadre de sa sortie sortie bi mu mujjee def donc euh, gis nañu un Sonko bu confiant donc ba pare ba di menacer même les autorités euh, ba di poser ay conditions pour mën a dem procès donc est-ce que aussi euh, confiance boobu aussi du autorité yéen yéen a ko c'est tout l'inverse hein, que j'ai que noté. Uh-huh. au contraire man gisuma nit ku am confiance boppam maa ngi gis nit ku ci ëllëgam moom moo xam lu tax man nag du ma juge juge bi mooy juger ndax. Euh, ci ban élément déjà élément corporel bi déjà kooku nag xëy na si si si si si expérience la mhm. mais fi ma bëgg ñëw dëgg-dëgg. Mhm. mooy que ne nii amul ku ñuy war a yóbbu justice nga taxaw jàkkaaroog état un état une république di poser ay conditions. Mhm. parce que la république daf fi nekk impersonnel ñëpp ñoo yam traitement. bu fekkee yow ñu jiiñ la sa kër nga jóg dem su wootewul woon ni kaa leen ko maa ngi woo ñëpp la daan wax maa ngi woo ñëpp nañu génn su ko def loon kon état du jël ay disposition mais koo xam ne dañ la woo tribunal nga woote yow yaa demandé état mu jël ay ay disposition pour que trouble à l'ordre public war a am maintenant les troubles à l'ordre public y a l'autorité et euh, l'autorité préfectorale par excellence moom moo ko mën a moom moo ko mën a apprécier dañu wax ni gouverner doo xaar ba dëkk bi lakk da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da prévenir ay situation donc bu fekkente ni ku ñu woo nga jóg jóge sa kër dem defe naa ni du jar ñu jël benn disposition waaye bu fekkee woote nga tax xam nañ ni it am na ñoo àndal ñoo xam ni boo wootee dinañ jóg muy benn mais yemul rek ni ñi nga àndal dinañ jóg mais dina am ñeneen peut-être ñu ci profiter pour def naka su dul noonu je pense que c'est normal nit suñ la woowee ni la kaay wuy ji tribunal nga woote ni kaa leen gunge jël leen seen disposition waaye nga utiliser même ay mots ni da ngeen di résister yamul ci résister ngeen def leen la ñuy woowee désobéissance c'est normal en tout cas un état qui se respecte mu jël ay ay ay dispositions ñun noonu rek lañ ko gisee c'est pas parce que dafa am ku ñu ciblé pour xañ ko ay droits wante dafa am une situation qui se présente et l'État se doit de prendre en tout cas les dispositions pour que situation boobu bañ a indi jafe-jafe mais aussi vu la nga moom ngi procès politique donc aussi euh, amul ay forces de ko mën a mën a garantir sécurité am garde du corps am doyuñu est-ce que moom peut-être euh, c'est pas de bonne guerre. Mm-hmm. le fait que muy basé aussi population pour mën a. Mm-hmm. am benn une certaine protection entre guillemets. qu'est-ce qu'on peut appeler procès politique dans cette affaire-là tous les Sénégalais. en tout cas s'accorde à dire que ni juum na juum na parce que effectivement jóg na heure boo xamante ni en tout cas comme li ma wax sànq nee nañ ko ñëpp di xool da ngay jaar fu leer nga jóg si guddi dem ci foo xamante ni nekkul benn institut de kinésithérapeute c'est pas chez ki kiné mais Sweet Beauty la tudd nga dem foofu guddi la fa xew nag moom loolu c'est la digganteem la ak ki ko accusé c'est le juge qui moom mooy jugé ndax am na wala amul donc lii yaa amul lu ci politique si sama xam-xam mooy que ni benn sénégalaise xale moo jóg accusé beneen sénégalais boo xamante nii dans un premier temps posté woon na ni foofu musuma fa dem xam nga quand inconstant dans tes propos rek nit ñi dañuy njort ni xëy na am na looy looy nëbb mais tout ça ñu ngi ciy maandu bàyyi justice bi def liggéey maintenant rek lii xew diggante ñu convoqué ko ak ba mu egg ci biir tribunal ba loolu la ñu wax ni benn jafe ci woon a am lu dul rek. en tant que sénégalais nga jóg dem wuyu soo waxee nii man dootuma wuyu sama justice su pays désobéissance désobéissance si bien que dans les faits demeewul noonu parce que euh, l'autre jour intuitu personnel il n'était pas présent mais il était présent parce que y avait ses avocats et moi je dis que nit ko wax ni gëmatuma sama justice dootuma wuyu sama dootuma wuyu magistrat yi mooy tu cesses d'être sénégalais tant tant que tu seras sénégalais tu es soumis aux lois et règlements et comme diggante comme accusé nañ ko diggante bi muy jógee këram bay dem ci biir tribunal ñun foofu suñu xalaat mooy coow war na ci ban a am war nga mën a xëy tranquillement ndekki ba suuf taal sa oto ànd ak say garde corps effectivement parce que bu fekkente ni autorité autorité politique nga dem dugg lay xew ca biir saal ba nag sa c' est la justice moom moo wax man la euh, du sax rek euh, à la veille du du procès parce que le procès en soi je pense que benn activité la boo xamante ni dafay dafay jàll mais de manière général il faut que la jeunesse soit consciente comme je l'ai comme ni ma ko waxee sànq ci bi may tàmbali que ni Sénégal lañ ko nawee ba muy sénégalais ak tey muy stabilité loolu nañu fexe ba ba ba préserver ko on est en politique ku nekk d'accord na nit nga am ambition d'accord na nit nga bëgg ni même maay wuti président de la république bi fi nekk mais gis nga une ambition boo ko amee tu vas user de tous les moyens yi nekk à ta disposition pour nga yegg si mais si l'ambition se transforme en passion non seulement di nga utiliser moyens yi nekk à ta disposition mais di nga dem même jéggaani ay yeneen moyens pour mën a euh, euh, accéder ci li nga xamante ni moom nga bëgg. mais si cette passion la maintenant se transforme en obsession et man loolu laa noté mooy que di nga dem bay utiliser des moyens non conventionnels et ça c'est regrettable dans le champ politique. on est une démocratie qui a un vécu démocratique et je pense que ni nii dëkk bi metti na. lii xew nii comme on dit ah c' est l'histoire qui se qui amoon na fi 62 63 amoon na fi 68 am na fi 88 amaat na te ñu ngi ñaan yàlla fii ak 2024 loolu jàll ndax sénégalais yi nag mën a concentré wu sur l' essentiel l' mooy dëkk bu nekk yaa ngi nekk si benn trend pour attendre la le développement développement mënoo ko am te amoo ay institutions yu dëgër donc il ne faut pas ñu nasaxal suñu ay institutions développement mënuloo ko am te mënuloo te amuloo yàlla nag baaxee nañu à partir de 2023 2024 li nga xamante ni àdduna bi bëgg nañ ko muy pétrole ak gaz ñu am ko donc je réitère mon idée sur cette affaire là c'est une idée que je partage wax naa ko fu ne mooy que ni 2024 moom c'est raté mënuñu am consensus pour ni diw demal ñëpp topp sa gannaaw mais bu ñu weesoo 2024 et c'est là où j'appelle euh, la jeunesse pour ñu xam ne dañu war a préserver dëkk bi ba 2024 jot kii gañe gañe bu boobaa nag ñu am un gentleman agreement autour du pétrole et du gaz xool les 500 métiers qui gravitent autour du pétrole et du gaz naka la ci jeunesse su Sénégal di mën a bénéficier woo jeune moom boo wax rek liggéey la lay wax on a enfin l'opportunité même si c'est pas le plein emploi mais au moins à 90 pour cent jeune Sénégal boo yëkkati su liggéeyul fekk na moo bëggul liggéey parce que nag 500 métiers autour du pétrole et du gaz nekkul loo xamante nii c'est rien yàlla moo ñu ko wërsëgale maintenant nag il faut ñu mériter ko nu ñu koy mériter mooy cette stabilité là ñu maintenir ko maintenir ko mooy lan mooy bu kenn di wax ni euh, euh, dama mës a dégg Serigne Abdoulaye Sy Al Amine wax ni teg sama bakkan teg sama xel a ko gën nit looy def teg si sa xel parce que soo tesee sa bakkan sa bakkan bu demee jeexal nga soo tegee sa xel nag di nga xam fooy teg sa tànk ba lii nga war a am nga nga am ko donc appel bi may lancé la jeunesse mooy bu leen dara jaral dara que cette paix cette stabilité bi nga xamante ni Sénégal am na ko ñu yàq ko pour intérêt yoo xamante nii c'est d'abord des intérêts personnels avant muy nekk des intérêts généraux. donc bu euh, ma un peu emboîté le par rapport ak 2024 dañuy ñëw tuuti donc 2024 euh, ñëpp xam nañu élection présidentielle donc est-ce que yow euh, monsieur Mbengue est-ce que yow bokk nga nga si ñi porter candidature président Macky Sall 2024. 2024 c'est pour bientôt c'est dans dix mois. c'est vrai que en 2016 bi Macky Sall di def référendum. en bon démocrate dafa bëggoon a bloquer effectivement que kenn du amatu lu ëpp ñaari mandat mais xam nga man lu tax ma nekk à l'aise sur cette question mm-hmm. et ça les archives son là mm-hmm. c'est depuis cette période que je dis man kooku nag man la engagé je suis contre la limitation des mandats pourquoi je me di que li war a am rek mooy qu'on se donne tous les moyens ba fraude électorale du mën a am mm-hmm. mais dëkk bu mu mënti doon ku ñu tànn ak quelque puisse être son profil ni kii la mu bëgg ñu jiite dañu war a trouver les moyens pour mu pour mu jiite. effectivement quand Macky Sall ko day day wàññi mandaam jëlee ko sept ans yóbbu ko cinq ans volonté boobu la amoon bëgg-bëgg boobu la am ba fi mu toll nii amul sénégalais bu la mën a wax dina dem wala du dem mais ñun nag fekk démb fekk tey lu ñuy nekk xale-xale fekk nañ démb fekk nañ su Wade fekk nañ su Macky Sall gis nañ les pas de géants yi mu def c'est-à-dire fi mu jëlee pays bi ak fi mu ko yóbbu avec tout ce qu'on comme perspective ñun ñu nekk ay partisans ñoo ko ñaan ni ko sa bëgg-bëgg moo doon nga sa sept yi nga wàññi ko def cinq conseil constitutionnel ni la loolu c'est pas sous le joug bokkul ci refe ci ci ci constitution bu bees bi donc constitution bii di ñëw président bu benn président mënu ci def ñaari yoon juróomi at ñun xamuñu lan mooy position mais man bokk naa compte tenu de tout ce que j'ai vécu avec lui compte tenu mu jëlee Sénégal ak fu mu ko yóbbu et dans l'intérêt supérieur de la nation en 2024 moom mu doonaat kasida dans la vie de certains de ses compagnons comme Cheikh def na benn sortie que ni dafa war a tablier bon il doit sortir par la grande porte euh, dernièrement aussi Arouna Coumba Ndoffène un de ses conseillers même position boobu la am donc est-ce que. xam nga nag mujj am nañu am nañoo cité. Mhm. Arouna Coumba Ndoffène loolu c'était pas son idée au début. Mhm. moom wax na fi jàkkaar ah, jàkkaarloog moom mu ne il veut que le président Macky Sall soit le président à mhm. du Sénégal donc comme li may wax rek bu fekkee da varier ci sa ay propos. au gré de contextes je pense que sa wax du pese trop maintenant c'est ku nekk ak sa idée ku nekk aussi dañ lay may li nga am ci xalaat nga joxe ko maintenant comme je dis on est dans une république ñii bëgg nañ ñu dem ñii bëgg ñii bëgguñu mu dem moom si boppam xamaguñu lan la bëgg mais li ma bëgg rek mooy institution yi ñu fi teg parce que ak kum mënti doon même bu doon nit boo xamante nii rey na cent personne condamné nañ ko cent cent fois kenn mënu koo teree dem déposer ji candidature loolu moom ku bëgg mën nga dem déposer maintenant nag ña nga xam ni boo déposé ba pare ñoom ñooy wax kii ak i war nañu mën a déposer nañ jox ñooñu confiance mu la conseil constitutionnel man foofu laa ko teg ñaari mbir xamaguma ba ñett président Macky ndax dina dem wala dem ñaareel bi mooy bëgg naa mu dem ñetteel bi mooy su bëggee dem nañu dem ànd ak ñi bëgg dem ñu dem déposer conseil constitutionnel ku ñu wax ni war nga bokk ci jogante bi nga dem bokk ci. ok mais moom est-ce que indirectement aussi euh, nekkul di fësal ni que ni dafa bëgg a bokk ci discrètement aussi je voulais dire dafa bëgg bokk parce que récemment aussi euh, gis nañ benn journal français bu génn que ni te na au même titre que Abdoulaye Wade en 2011 je pense euh, des juristes français pour voir s'il peut se présenter en ça je peux prononcer. benn journal moo ko génne xaw ma ndax dëgg la wala dëgg su ko defee am na ci droit parce que comme je dis moom xelam moo doon du ma dem mais ñi ko wër en tout cas ñi ëpp ak li ma gisit ci biir Sénégal mooy ñi ëpp ci Sénégal yi bëgg nañ mu dem xëy na aussi moom aussi warul dem warul dem déggoo ma nee naa man ci sama gis-gis je suis très clair dama ci sama gis-gis ñu ëpp ci yi bëgg nañ ñu dem parce que man en tout cas ñi may fréquenté ak milieu yi may fréquenté loolu laa gis gis naa it sama intime conviction mooy intérêt Sénégal mooy mu demaat jël réew mi et je suis en train de travailler à ça su ma jàkkaarloo moom dama koy wax et je considère ba fii ñu toll que ni dafay dafay dem moo tax soo ma fekkee Tivaouane nga ma dëkk di fa politique parce que tu m'interroges en tant que acteur politique ba mu ne prip ñu defar leen ay comité je pense que loolu raar na Sénégal dama monte lu toll ci téeméeri comité ak ñaar cent 102 comité sans tambour ni trompette barki démb bi ñuy inscriraat dama inscrire lu toll si 1047 primo votants ay jeunes que je maîtrise ñoo xamante ni waxtaan naa ñoom te gëm naa ni à 90 pour cent parce que nag ëllëg euh, ku nekk leen na sa xel moo xam président Macky Sall la ñuy voté donc moi je travaille bañ ku ma bett pour que bu ñu taxawee parce que am na ay épisodes yu ñu vivre au niveau de Tivaouane en tout cas man sama apport ci victoire am nekk apport boo xamante ni apport bu dëggu la. parce que yaa ngi wax tout à l'heure au niveau Tivaouane jeu jeu mais est-ce que aussi bon pourquoi pas nous fu mu bëgg jëm mooy y a d'autres leaders yi nekk foofu aussi comme Abdou Ndene y a aussi Diop Sy donc euh, pourquoi pas dafa mel ni y a plus une certaine cohésion entre vous au niveau Tivaouane pourquoi. xam nga nit dañuy wax ci loo xam. Uh-huh. ñooñu ñëpp c'est mes frères. Uh-huh. je te dis hein que ce soit Abdou Ndene que ce soit Diop Sy ak tous les acteurs politiques qui sont qui sont là-bas uh-huh. même. par exemple suñu waxee le montage des comités ça c' est une affaire personnelle dañu wax responsable bu nekk soo monté comité sa responsable lu bopp nga. mais yàlla dafa dogal bi ma jógee ci mairie bi ma créé benn association bu ñu woowee Tivaouane ba faw qui est aujourd'hui fort de près de 5000 membres mooy ñu jënd seen carte de membre laay wax. Euh, bu fekkee ci wàllu montage comité comme affaire personnelle la ñi ma àndal. ku si nekk moom moo volontaire ni dama bëgg a monter nekk def ko sa responsabilité loolu nag dafa am lu muy laaj ci benn parce que man j'ai une dama am foofu benn permanence ma def fa un comité permanent ku ñëw préparé wu ba pare ñu monte donc ñi si des vraiment amuñu benn xaar ma yàlla ci xuloo wuñu xeexuñu je pense que barki Dembo Ndiaye démb rek ou avant-hier avec le maire Demba Diop Demba Diop si ku ne ku ne gis nañu Abdou Ndeye aussi on a aucun problème mais nag quand il s'agit de travailler pour le président de la République, je pense que pour le montage d'un comité, comme j'ai dit, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas même une affaire de responsabilité. C'est parce que tout le monde du comité, le, nom du, du l'expérience également à montré, m'a montré, m'a permis de comprendre que pour travailler efficacement, il faut se lever et aller sur le terrain. Et c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, Kounek, Minkoy Def, côté. mais ce à quoi moi je peux répondre en tant que responsable mooy li ma def ña ma ko defal nama ko defee loolu rek laa mën a exposer. ok donc par rapport ak législative yi passé a pas eu des euh, waaw xam naa yaa ngi ci question boo xam ni comme euh, j'avais entendu mon frère euh, Serigne Mbacké Ndiaye le dire à la rajo nee na moom mën na expliquer résultats yi am ci Sénégal yëpp am des résultats ci ça a surpris tout le monde y compris le président. y compris ñun ñu nekk responsable yi cette friction là ngay wax amul woon moi j'étais le coordonnateur du comité électoral départemental je travaillais avec tous les leaders je n'étais pas candidat donc mais ñun maanaam jiite woon le comité électoral départemental le comité électoral communal Ablaye Ndiaye moom moo ko jiite woon et il siégeait au niveau de ma de permanence donc wane woon nañ une certaine une certaine cohésion mais Sénégal soo analyser les résultats des élections législatives de manière générale je pense que benn vent bu fi bu fi jaaroon la dans un contexte jusqu'à présent on n'a pas tous les éléments pour expliquer ce qui s'est passé à Tivaouane mais ça je dis à quelque chose malheureusement. parce que euh, euh, euh, ma ni à quelque chose malheureusement. Uh-huh. parce que loolu bu ñu xaaroon ba présidentiel mu bett ñu si may gën a metti mm-hmm. mais nii mu demee ci législative yi permettre nañu ñu defaraat suñu toogaay. Mm-hmm. xam ni y' a un travail à mm-hmm. ñu nekk sur le terrain du du travail maintenant est-ce que la Yewwi n'a pas fait une percée si parce que ñoom ñoo ñoom ñoo gagné. ñoom ñoo gagné maintenant la Yewwi c'est vrai que benn kaléidoscope la boo xamante ni ku si nekk jóge na feneen euh, bokkoon ci il y a certains éléments d'analyse yoo xamante ni am nañ ko mais suñu xel daal en tout cas dal na que ni euh, ñun on est en train de récupérer Tivaouane bala ñu koy xam nag élection jotaat mais ñi ngi ci te ñi ngi ci dalal suñu xel bu baax a baax. abuser un peu de votre temps euh, ma am benn question ma la posé par rapport à bon nekkoon nga fi maire euh, mais bon cinq ans nga fi def après keneen ñëw remplacer la donc yi passé aussi bon vous êtes arrivé troisième aux élections donc selon vous lan moo andi sa chute en cinq ans de magistère. oui c'est vrai finalement même c'était cinq ans on a fait En tout cas, ma satisfaction, moi, que j'ai été le maire que je devais être. Et Yalla Dogolna, dit jusqu'au moment où je vous parle, les Tuawana, en tout on ont toujours à l'esprit. Les gars, tu ci wàllu yokkute dëkk bi am na ko sous zone majesté et damay fàttali toujours et c'est important que ñun biñ ñu falee maire ba pare suñu kër lañ ñibbi maanaam amuñu bu ñu dugg suñu passation de service bi ñuy def passation de fonction amuñu woon un dossier de passation parce que mairie Tivaouane dañ ko lakkoon au moins ne serait-ce que ça si lañ tabax benn mairie par l'État moo ñu dimbali ñu tabax ko une mairie qui nous a coûté deux ñu créé une administration il y plus d'administration il y avait il y avait plus rien ñu dem au niveau des quartiers rattachés ñu ñuy xamal ni ñoom ñu ngi bokk Tivaouane 2008 ba 2014 may ñëw mënuñu wax ni lii ci Tivaouane lañ ko jëlee on a fait onze kilomètres de route jëlee ko ci village rattaché yi indi ko yokkaat am na quartier yoo xam amuñu woon ndox yóbbu nañ fa ndox am na fa amul woon courant yóbbu nañ fa courant def au niveau de Tivaouane état dimbali ñu def 10 kilomètres de route olof nag nee nañ tombé waral ay gaaf suñu première CRD quand le ministre de l'intérieur ab Daouda m'a dit pour gàmmu gi loo xalaat je lui dis mairie dinañ def lu ñu daan def mais Tivaouane war nañu tàqalikoo ci bâche ak ay tube l'état comme moo yilif ñëpp war na fi def loo xamante ni ëllëg bu ñu soxlaa salle de conférence kenn du bâche kenn du tube yàlla barkeel na ko avant ñu fay jógee en tout cas sous notre magistère te aussi salle beaucoup de Tivaouane même d'ailleurs l'Union hein que ce soit la l'auditorium Khalifa Ababacar Sy ak salle bi matériel ya fa ne l'AGETIP a signé avec nous pour matériel boobu ñu c'est-à-dire que c'est sous la coupe de la de la main tey Tivaouane en tout cas ku ñëwoon 2012 ak ba ñu fay jógee gis nga ni changement am na bi ci des mooy tey jii soo demee Tivaouane daaw football ñu nawetaan pourquoi dañu tëj stade bi pour defar le gazon gazon ba fa ne gazon synthétique nekkul lax loo xam ne mairie moo ko jënd mais ñun ñoo ko jënd mais pour résumer lan moo tax xam naa foofu nga doon jëpp nga def lii yëpp fekk ñaata quinze lu ëpp école kenn clôturé wu leen ba nga koy jógee la nga fa bàyyi ci école yu ñu wul matuñu matuñu cinq li nga def si wàllu social et cetera pourquoi nga jóge fa je dis j'ai été le maire que je devais être maire bi ma waroon a doon moom laa doon mais am na ñoo xam ni ñu ëpp si dañu bëggoon nga doon maire ñoom bi ñu bëgg déjà je le dis parce que exemple bi mooy lan toog naa ci émission nit ni ma monsieur le maire def nga fi 11 kilomètres de nga fi mairie tabax nga fi lii même tabax fi infirmerie de la xadara tabax nga même logement benn benn infirmerie boo xam ne yaa ko maye tabax même ay jàkka maye ko ci ay dëkk wante monsieur le maire ñaata ngénte nga mës a dem ci Tivaouane <laughs> donc nit ñi dafa am benn façon boo xamante ne nii moom la ñu bëgg maire bi may ko doo te disent pourquoi soo ñu rombee doo wàcc ñëw nuyu ñu man ma juddoo Tivaouane màgge Tivaouane dama mën groupe bu ma romb mu wàcc nuyu leen donc mission la ñu nekkoon et vraiment tout le monde a a suivi boobu aussi euh, mi ngi fekk IPRES IPRES nag ku fa nekk le directeur général de l'IPRES on lui demande de trouver par mois pour payer les pour payer les pensions kooku aussi xëy na na nga bëggee di ñëw tout le temps ci sa mairie doo ko doo ko mën parce que aussi loolu aussi ndam la euh, bu ñu la dénkee direction bu mel noonu wala bu mel ni SNHLM aussi da nga fa war a def da nga fa war a def résultat Euh, tout le monde également avait suivi je pense que sama nekk maire Tivaouane wax naa bés ma ne leen su ma nekkoon président de la république sax yëg-yëg ba ma amoon ba ma Serigne Abdoulaye Sy Al Amine ne maire bi yaa fi war a toog ndax nangam ak nangam mag ñee ma déy ma wax def naa yëg-yëg boobu dootuma ko amati donc ay grade la yoo xamante ni euh, ay galon yu ma takkal ci Tivaouane yoo xamante ni incha allah ba ñuy génn àdduna dañ koy dañ koy conserver mais y' a pas mm-hmm. bi ñu jógee ci maire bi ñu teg fa keneen Diop si nekk fa dañ koy yéene ndam dañuy parce que ñu dañ bëgg Tiwaawan jëm kanam moo tax kenn du ma dégg may critiquer le maire wala may critiquer la municipalité quand les gens vont même m'inviter ci champ boobu dama ciy génn parce que au-delà de la politique on est des frères et tey jii man en tant que citoyen euh, Tivaouanois dama yéene le maire ba fa nekk mu def mu def mu def succès moo tax nag pour wane ni euh, façon bu ne mën nga ko participer sa développement dëkk moo tax bi ma jëndee ci mairie bi c' est vrai je continue à être de l'APR le coordonnateur de l'APR dans la commune ma créé Tivaouane ba faw waa Tivaouane yëpp na gis nañu la la ma sama kàddu démb méngoo na ak sama jëfu tey ndax on fait d'énormes sacrifices pour les populations de Tivaouane sans calcul parce que yàlla rek a xam ëllëg de on on ne dit jamais jamais ñu xel nekkaat maire nekku ci nekk député nekk ci nekk au conseiller nekku ci nekk lenn loo xamante ni dañ la koy fal ngay laaj baat bi askanu Tiwaawan nekku ci li ci nekk mooy taxawaay ba suñuy maam amoon parce que looloo ñu boole Tiwaawan nag démb ak bërki démb di dimbali waa Tiwaawan ñu koy def loolu si lañ nekk te incha allahu taala dañuy ñaan sax ci. des regrets. pas du tout wax naa ko. regret regret regret amul. la preuve ñoo ngi pare élection yi janvier 26 janvier 26 mars deux mois après on a mis en place le Tivaouane Bofo et le Tivaouane soo bënee mën nga dem nga def reportage dinañ la wax ne li ñuy def. avec suñu association Tivaouane ba foofu ba ñu nekkee maire sax daawuñu ko def te bi yoon nag lu sax ñu nekk ci à l'aise mooy comme ni ma ko waxee amul benn baatu askan bu ñuy dagaan pour suñu bopp xanaa kay nañ dagaan baatu askan bi nag pour le président de la république Macky Sall en 2024. ok donc ñu fàttali que tey ñu ngi dalal monsieur Mamadou Diagne si Mbengue nekk responsable APR à Tivaouane nekk aussi directeur général de la SNHLM euh, ñu ngi si jeexantalu émission bi euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo peut-être par rapport même à ces yi ngeen di waaj a organiser le 25 cinq à 27. waaw may euh, ma lay remercier ci ci invitation bi mais également comme ni nga ko waxee. Mhm. fii ci SNHLM dañuy préparer ay journées portes ouvertes ubbil suñu bunt. Mhm. sénégalais yëpp pour ñu ñëw xool HLM li nga xam ne jot na ko liggéey 1959 ak tey waaye it dañu jàpp ni bu ñu fi defee ñetti at ak genn wàll am fu ñu fekkoon HLM si ndimbalu yàlla ak ci jàppale euh, personnel u SNHLM bi yëpp ñu gis ni def nañ ci ay jéego et que sénégalais yi je pense que ñun trouver nañu ay moyens pour luy suñu mission première si jàppale nag président de la république Macky Sall ak son gouvernement ñu mën leen a jox li ñuy suñu mission muy ay parcelles ay euh, assainies ak ay kër ñu woo leen wala leen di HLM liggéey 59 ak tey ñetti at yi jéego yu ñu def parce que je pense que li ñuy wax inclusion sociale ak équité territoriale ci wàllu habitat ci SN HLM moom fi nga fi la fekk baax ndax tey ji muy dakaar di Thiès di euh, Kébémer muy saint di Kol di di di Fatick di Kaolack di Sokone di Tambacounda di Vélingara Haute Casamance en Basse Casamance Ziguinchor et bientôt on va faire la même chose à Kolda a Bakel SNHLM ma nga fa am ay chantier lii nag sénégalais yu umpale nañ ko benn bi ci des da ngay wax ak nit mun la man sama xaalis def naa fa ñeenti at juróomi at même musuma jot sama terrain ñu bëgg leen woo wane leen ni ci 2022 am na ñoo xam ne ci at mi lañ joxe seen xaalis ñu jox leen terrain maanaam tey dañu am benn modèle économique bu bees boo xam bëgg nañ leen ko exposer nekkatul ni maa ngi fiy def sama xaalis di xaar programme naam loolu am na ba tey mais li ñu gënal nga xam ne modèle bu bees bu ñu indi mooy defar ay terrain yoo xamante ni soo dugalee sa xaalis balaa at mi jeex nga jot sa parcelle Bambilor tey ji soo fa demee lu toll ci près de 1500 parcelles ci at ci en 2022 pare nañ ko tey jii boo ñëwee ni ñu euh, euh, damay jënd amaana boo joxee sa xaalis bu gannaaw subaa ñu yóbbu la nga xool nga xool nga xool sa terrain loolu yëpp nag comme Sénégalais dañ ko ignoré ak projet yi nga xam dama fi même au sein de l'État da ngay wax ni chantier Sénégal ñu la loolu xaw ma ko woon loolu yëpp nag je pense que bu amee comme ni ma ko waxee nag loolu yëpp bu amee ci ndimbalu président de la république ndax problème mariste ñëpp kenn déggatu ko te chaque trois jours nga déggoon copropriétaire yi génn wax lu ko indi mooy président de la république Macky Sall lañ toogal waxtaan mu jox ñu 17 virgule 2 milliards ñoom ñëpp ñu indemniser leen parce que préfet waxoon na ni wóoratul woon ñoom ñu dëkk fa pour protéger leen nañ ko toj ñu toj 20 immeubles yi jam ñaaño ñu bari jëndoon nañ fa ay parcelles mënatuñ mënu foon dëkk parce que suuf si baaxul parce que pour nga tabax foofu da def un coût supplémentaire de 40 pour industrie yi wër ko ñu ni ñun li gën a yomb si ñun mooy joxe parcelles yi mais non non ñun teguñu ñu fi rek pour ñuy def ñuy gérer noonu dañuy anticiper ci ëllëg. ak aussi protéger les populations bañ ñu dëkk fa ëllëg ñu am ay feebar yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci usines yi leen wër ñu jël projet boobu ñu yóbbu ko Bambilor yooyu yëpp ay succès la. yoo xam te ni SNHLM am na ko ñu pare ay immeuble fii ci Gibraltar pare ay immeuble fii ci Fass loolu yëpp population yi xamuñu ko ñu bëgg leen ko won mais également la diaspora bi nga xam bërki démb rek am na benn salon bu ñu jógee ñu ne ñun day lii ngeen ñu présenté xamuñu ko woon donc vraiment dañ ko def pour que état mën a xam ni SNHLM aussi am na taxawaay boo xamante ni ba mu taxawoon démb ak bërki moom la taxaw lool nag defuñu ko ci pilotage à vue maanaam fi ñu jëm xam nañ ko ci lu leer ndax dañu élaborer lu ñuy wax benn plan stratégique de développement sur les cinq ans à venir ñu war a construire plus de quinze mille logements avec des financements yu ëpp trois cent milliards loolu yëpp nag aussi dañuy def benn roadshow présenté ko le gouvernement les partenaires technique et financiers ñi nga xam ne bëgg nañu liggéey ak SN ñu wan leen ni juróomi at yi ku bëgg a liggéey ak ñun lii mooy suñuy projet ba ci fii ñu toog di siège SN bëgg nañ ko changer xar kanamam def fi ay tours li ñuy woowee les tours de euh, de l'obélisque siège bi daf fii des parce que yàlla def na ñetti ñetti ñetti façade la ñu am mais également ay commerce ay bureau ay appartement am nañ projet bu am solo boo xamante ne nii euh, war nañ ko def fii nga xam près de 4000 mètres carrés ak li ñu war a def ci région yi yëpp nag projet 100000 logements yi près de 15000 logements loolu yëpp nag xëy na suñuy def ay communiqué nit ñi dinañ ko dégg su ñu ñëwee nag toog def ay stand ku ñëw laajte ñu expliquer la dina gën a dalal seen xel confiance bi ñu amoon démb ak bërki démb te dañagul woon mu nekk loo xam dañ koy renforcer. ñu ngi lay jaajëfal monsieur le directeur général. jërëjëf man maa leen di remercier bu baax merci.